Euh, daal di nañuy faatati ay doomu Sénégal ca bitim réew suñu ñaari compatriote la ñu faat si ab fusillade ca États-Unis ñoom ñoo ñee di Abbas Mbaye ak Abdoulaye Diallo nañu mujjee doon na lu triste lool ñoom ñaari sénégalais yi ñu ngi leen faat di ber si ngoon ca Providence si euh, ab fusillade bu fa amoon ci ab fête ñaari sénégalais yooyu nag guddib samedi jàpp dimanche si ay bor 3 heures du matin la leen faat gannaaw ab fusillade ca Providence ñoom nag ci biti fa ñu doon amalee fête ba la ñu leen dóoree dóor yu métti lool ñoom nag ñu ngi leen identifié ci turub Abdoulaye Diallo ay atam toll euh, ci 24 maanaam ñaar fukk ñeent ak Abbas Mbaye ay atam toll si euh, 29 maanaam ñaar fukk ak juróom-ñeent di ñoom ñaar ñëpp ay doomu sénégalais euh, kenn ka ko fekkee daa dinay xamle sax ni ballu fetal ya ñoo ko yee ca kaw lalam daa dinay xamal taskatu xabaar ya maanaam presse américaine ba ne rek dégg na sax lu toll juróom-ñaari ballu fetal la laata muy jóg gis la xamante ne nii moo xew ca biti nee na it dégg na kuy yuuxu naan mon frère mon frère il s'est fait tirer dessus nee na nag ba mu yóndoo la dal di gis rek la nga xamante ne moo xew di mbir mu métti lool bu ñu sukkandikoo nag ci police victime yi ak keneen ka nga xamante ne ni bokk na si dañoo dugg ca kër googee amoon fête euh, par une porte dérobée su noonee lañ leen waxee ñu génn bu ñu sukkandikoo ci major David ci ab conférence de presse ñaari compatriotes yooyu am na kañu xam ca fête boobee euh, si noonu nag xuloo daal di fay jib ca biir kër ga mujjee ji ca biti laata xeexoo di am seen biir euh, si lu toll ko fukki doom yi aadama euh, police nag mu ngi di liggéeyam di examiner ba tey vidéo bi waaye itam di wax ak yi ba fii nag may wax ak yéen amagul benn arrestation maanaam amagul kenn ku ñu si teg loxo daal di dañuy tiire sax ay balu fetal yu bëri ñaari victimes yi ñoo ngi leen yóbbu tey ci major David suñu compatriote yooyee yoruñu woon ay ngànnaay euh, pour le moment maanaam jamono ji euh, enquête bi ñu ngi koy wëyandi waaye amagul arrestation euh, si noonee génnub adduna ba Abdoulaye Diallo ak Abbas Mbaye moom mooy rek neuvième ak dixième homicide ya ñuy nemmeeku at mi ci boobule ville Abbas mbay nag moom mu ngi ñëw sa États-Unis bu yàggul dara benn semaine la fa am waaye nag musul woon a njort ne moom moomee foofee du fa yàgg dagg eh, dal di fay ñàkk bakkanam ci anam bi ni mel Abbas moomee deful sax fukki fan ca réewum États-Unis semaine bi la ñu génne la jóge ko Sénégal daal di fay dem mu demee nii tey moom moomee am soxna mi ngi rek amoon ay mbébét yu bëri yamu defoon ci boppam waaye nag malheureusement yooyu les mbébét du mës a antu ndax gis nañ lu ca tukkee Abbas Mbaye moomee sax seex la seex ca Togo la nekk niki tey ji sax lay ñëw fii si Ndakaaru di mbir mu métti di leen di jàll seen famille waaye it euh, diaspora bi ak askanu Sénégal bi yëpp te di leen di ñaanal yàlla rek mu taxawu leen te xaaree leen ci aljana yu gën a kawe